رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلul uqdatan min lisani yafqahu qawli bokku téléspectateurs yi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak nun dinu bàyyi xel fu ngeen mënti nekk ci àddina bi ci seen télévision Côte TV ñoo ngi leen di nuyu tey nag mooy samedi ñaari fan ci weeru juin 2018 tombé ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru chahru ramadan al muazzam ñoo ngi fii nag ci koñ Jalma ni ñu leen ko diggee woon ci bande d'annonce bi Ah, yéen a ngi ni la ci image ak bok yi nga xamne ñoy wa action daara ji tay di seen bisub joxe ndogu bu am solo bobu nga xamni ni lañu fasiyene amal fi ci konjalma ci Mbour ah, tay ji nak seen television ko TV fasiyene lepp lu fi xew mu jotali len ko ak fu ngeen manti nek ci aduna bi lu ngeen sori sori loolu moy sunu ah, tawfiq tay nak ñu fatali mbokk julli di ne anniversaire bu am solo la ci l'islam ndax tay ji moy bis bi nga xamanteni ni jox na ndigal rasulillahi sallallahu alayhi ni ko nag tooñ yi ñu la doon tooñ ak itam xiise gi la doon xiise nag jaadu na nag léegi nag woneel sa force fayul ma jàppale la yan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajale ñetti téeméeri góor ak fukki nit ak ñett yéefar yi doon ay junni ñu dajeek ñoom am ca victoire bu mag bi l'islam njëkk a am tey jii mooy anniversaire bi xam naa dana ñëw léegi ak coordonnateur action daara ji ci euh, bis boobu ni ñu ko jàppee ak itam ni mu demee ndax dañ ko tànn wala dañ leen ko tànnal ndax bis bu yéeme la nañ ci ñëw ci biir waxtaan wi kon ñu ngi fas yéene ànd ak coordonnateur action daara ji muy Serigne Mor Youm ak euh, Seyda Soxna Aïcha Ñang incha allah moom tamit euh, dina di ngeen ko gis ci waxtaan wi seen mbokkum taalibe sooy bu Diop ak waa télévision Côte TV mboolem équipe technique bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Ablaye Diaye junior ci caméra Baye euh, euh, Dieng ci montage ak Alaaji Samb reporter ñoom ñëpp ñoo ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara bu baax a baax kon li ñuy njëkkee mooy jox Serigne euh, Mor Youm mi nga xam ne mooy coordonnateur action daara ji Serigne moor ñu ngi lay nuyu te di la ziar di la bàyyi nga nuyoog bokku téléspectateurs yi ak ñi lay seetaan. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyuwaatee di leen ziar. di len balu ak te di len bal di len euh, jaajeufal yeen wa cote TV ñi xamne ne chaque jour ni ma koy waxee dama len fan si affaire moy ne initiative bi ngeen def dafa rafet parce que euh, li ni yom war deug yomul def nañ ko fay adi at liñ nan mbir dal nek ci rek tanki kanam la yam ñu ngi koy di jël nuyu bi nak di tek ci loxay bu di jaajeufal euh, yëpp jokk ci loxay Baye jemi xamne yalla ne dem na xamel bi ci mom la jaar di len wax jere ngeen jëf ak sama cameraman ak journaliste bi ñu andal waa yëf yi de moom wax dëgg yàlla bi nga koy tànd sax di ko def ñu nu ñun bàyyiwuñu woon suñu xel ne loolu lay tombeel si yëfu badar bi mais liñ naan lu baax lu baax rek lay doone yàlla def euh, mu tombe ko dañ koy sant yàlla jërëjëf di leen wax ne initiative bi ñu jël nag mooy ne joxe ay ndogu joxe ay ndogu nag chaque jour ñu ngi koy def fii si terrain Jalma chaque weeru koor ñu ren mooy troisième édition bi ñu koy def fii si bayal bi di leen wax loolu daal lañ ci jéglu bu ñu paree jokka ñi nga def maa ngi déglu sëñ sooy bu après bu ma laajee si question rek ma yegg si incha allah Mor Youm coordinateur action daara yi section bu mu def euh, Serigne Mor Youm tabarkaal la nuyoo bu am solo boobu ñu ngi lay gërëm bu baax kon ñu jox soxna Aïcha Niang moom mi nga xamante ne ni tam euh, kenn la ci ñi nga xam ne ñooy saytu yëngatu yi nga xam ne moo nekk ci action daara ji section Mbour soxna Aïcha Niang ñu ngi lay wax asalaamaaleykum waa télévision Côte TV ñoo lay ziara bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi lay seetaan ci àddina bi. ok jërëjëf euh, soxna ñaŋ Aïcha warka la ci nuyoo yu am solo yooyu ak itam jotal googule ñu ngi lay gërëm bu baax daañu jël siwaat léegi ci yow euh, sëñ Mor fi ñuy njëkkee mooy ci bis bi ngeen tànn tey mooy bisu fukk ak juróom-ñaar ci koor. muy bis boo xam ne wax naa ko léegi doon na bis bis boo xam ne histoire daf ko retenir ndax day bisu histoire boo xamante ni dafa am solo ci l'islam muy bisu xaswatu badrin ndax da ngeen ko tànnal seen bopp wala dañ leen koo tegtal bëgg naa nga ñëwal ma foofu ak itam euh, yi nga yi ci aju ci wàllu googu. waaw alhamdulilah comme euh, sëñ sooy bi ni nga wax wax dëgg yàlla ba bi bi koy tànn sax euh, jëriñu woon rendre compte rendre woon ne dina tombe bëtu badar bi mais liñ naan lu baax boo koy def. defin la rek jëfal rek te xam na li ci des yàllaa koy fay waa dëgg yàlla dañ ciy sant yàlla dañ ciy sant yàlla parce que keroog bi ñu toogee réunion alxames oustaz Abdou Diop ak oustaz Asloum bi ñu ko waxee ñun dañ ci xaw a gën a amaat benn yëg-yëg te xam ne bës bi luñ ci war luñ ci ñaanoon rek dina mat te parce que biñ ne fanweeri mbana ñu bëri ne woon nañ tiitoon nañ ko mais man gëm naa ne tey jii loolu rafet na tey parce que fanweeri mbana yi teg nañ ko si bayaal bi yàlla def suturo boobu ñaari nag yee ñu opté woon tamit yàlla def na ko kon nag mbir mi daal alhamdulilah badar bi daal baadaaroon na daal macha allah. jërëjëf euh, Serigne Mor tabaarkalla soxna Aïcha euh, ñàkkul nga andil ñu rek fàttali ñu tuuti ab tënk bu gàtt ci xaswatu Badrin ak ni nga xam ne noonu la euh, saxaaba yi amee woon détermination ngir gagné yéefar yi donte seen lim bari na waaye ñoom it donte seen lim néew na ñu fexe rek ba yàlla defal leen ndam ci xaswatu Badrin xeex bu wax boo wax nga xam ne moo symbolisé l'islam mo jur xare yenen yi may l'islam ndam yep tay ñakul nga am rek ay tënk yu gatt yooyu ci andil inshallah taala soxna ay señam wa señ bi ñoy ngi lay sant bu baax ya tamit di wax ni ghazwat Badr bokku na ci xex xex bi nga xamni mom la l'islam gëna fonk ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni xex bobu kep bepp julit bu ko fekke sa sa yaram garantel na la aljana kon bis bi suñu bis bi tombe bisu ghazwat Badr yal nañ yàlla boole si ñi nga xam ne dañuy dem àjjana bis bu bis bu màgg la ndax weeru koor la woon ñu fekk ñu woor jullit yi ñu ngi toll woon si ñetti téeméeri nit lañu woon yéefar yi nekk junni nit kon junni si si ñetti téeméer am junni moo ëpp mais yàlla su yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañoo dem ba malaaka yi yàlla dafa wàccee malaaka ñu dem bay bokk si xeex boobu kon ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax bis bi ñun biñ koy tànn sax xalaatuñu woon sax xaswatu badr lay tombeel yàlla def mu tombe kon ñu ngi sant yàlla bu baax ndax am nañu yaakaar ni yàlla dinañu boole si ñi nga xam ni di garantir na leen àjjana kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. Euh, soxna Aïcha ci euh, leeral yu am solo yooyu sëñ Mor bu ñu ñëwaatee ci yow dañ lay laaj euh, action daara ji naka la def ba mobiliser lu toll nii ndax waxuma la maanaam fi ñuy njëkkee mooy ci budget budget bi nga xam ni. tax na ngeen jëf-jëf ju rëy ji ak itam euh, mbooloo mi wax dëgg yàlla bi ma ñëwee fekk naa fi murit yi xaadir yi tiijaan yi ñëpp fekk nañ leen fi dafa mel ni kon woote bi li ngeen ci bëggoon dafa mel ni am ngeen ko euh, ngeen nga tënkal ñu ci wet googu naka ngeen euh, fan ngeen jaar wan yoon ngeen tege ba egsi fii tey ci wàllu budget ak ci wàllu mbooloo ci wàllu taxawaay bi. ginnaaw bi ñu sante yàlla di sant suñu sëriñ muy sëriñ Habib Sy Mansour muy doon koo xam ne mooy suñu responsable. lii lépp ci initiative am la moo ñu boole nañu bi mu bi mu fi ñëwee 2011 mu ne damaa bëgg bala maa ñëwaat mbuur na Mbour verte ni Mbour du verte nag mooy ne du questionné da ngeen di deme seen doole mais demee leen seen xel na ngeen waxtaan ak képp ku bokk ci xadara bi ak ku bokkal ci xadara bi gëm leen diine mbir mi na ngay gëm diine boo gëmee diine rek ak lislaam doo sonn côté boobu nag la ñuy doxee yàlla def mbuur nag liñ naan sëriñ si dañ ko buggal seen bopp ñun xam nañ ne loolu am na parce que ku si wax rek ñun Tivaouane nag ñuy njëkk a tudd si yëf yooyu yàlla dem nag ñu dugg si biir dëkk bi am ñu ñu gisal wax ak ñoom fekk ñoo ko mel ni Ousmane Ngom mu doon koo xamante ne Pam Ngom si wàllu murit la mais si suba ba léegi mu ngi fi jàpp ak ñeneen ak ñeneen waa kër mam Malick waa kër euh, Seydi Habib Jamil ñëpp ñu ngi fi ndax lan mooy ne dañoo dem ku si nekk ñu wax la ne la mbir mi moomatuñ ko mbuur ñoo ko bokk dañoo bëgg xadara bi yëpp ak taalibe yëpp murit laayen tijaan ñu daje foofu sant yàlla defal ay barne jox ko nit ñi jaamu yàlla yi parce que mënuñ na tijaan yi rek a koy lekk mënuñ na murit rek koy lekk kon nag il faut tijaan yi ñëw murit yi ñëw ñu ànd doonandoo benn ndax nit ñi xam ne ñun ñëpp benn lañ fii nii sëñ Sohaybu dañoo ñi réer ñoo xamul waaye ñun xam nañ ne murit ak laay rek ti xaadir ak tijaan lépp benn ñoo bokk fa yàlla loolu daal moo tax ñu def ko macha allah. jërëjëf Serigne ci ci laaj boobu ba tey Euh, liggéey bu toll nii ku ko def ñàkkul nga am cible maanaam euh, boo ko defee nii ngeen ko war a defee ñàkkul ngeen am fu ngeen ko war a jëmee euh, ndax mën nañoo xam seen cible ci liggéey bi bu sotee ndax yéen a ngi ci gis nga gaa yaa ngi ci mbana yi gis ngeen image noonu le gaa yaa ngi ci mbana yi gaa yaa ngi ci yi ñiy xolli soble ñii di def yëf ñii lu neen ñu ngi ci Sonope fan la jëm ak ñan ngeen ko jagleel wala bok da ngeen di tassare rek fu mu ag baxna wala am ngeen cible bo xamanteni jam fa la jëm señ señ Mor wa alhamdullilah lolu tamit aussi sëñ sooy lolu mom yalla def na ni ñu ko doon defé chaque année ren non lañ ko fasiyene defé yalla def na chaque année daara mburi bari nañ. mais amna ay quelques daara yo xam ko cité ku melni daara Alaaji Wàdd fii nii si ginnaaw foofu dinañ fa yobbu daara Cerno Mansour Baro dinañ fa yobbu daara Cheikh Tidiane Wàdd dinañ fa yobbu daaray xalifa eh, jëy dinañ fa yóbbu li si des nag dañ koy jël yóbbu ko hôpital hôpital nag li ñu wax ñu wax lool mooy ne am na ñu fa tëdd mënuñu dem fenn tànkale am na lu ñu lekk mais tamit am na ñoo xamante ne dëkkuñu biir mbuur te dañ fa entré ñu ne nañ yóbbu yëf yi jox leen ko buñ demee ñoom ñu mën si am xewlu loolu daa lañ def daara yi xam ne nag ñoom it aussi taalibe yi guddi gi day guddi te mën nañoo wër di yalwaan yalwaan mi day guddee ñu ne ñoom it nañ leen toogloo seen place ku si ne dem nañ si daara ja ne la guddi incha allah dinañ la indil ñaari mbana daara yëpp ku si nekk ñeenti daara yi dinañ fa yóbbu kon juróom-ñetti mbana hôpital bu ñu yóbbu ñetti mbana muy muy fukki mban ak benn yoo xam ne dañ koy yóbbu li si des ñu euh, fukki mban ak juróom-ñeent yi ñu yemale ko fii si bayaal bi incha allah la ñuy def. jërëjëf Serigne Mor Youm ci euh, kàddu yu am solo yooyu euh, kon mbokk yi lii benn la woon ci jataay yi nga xam ne tey waroon nañ leen ko andil fii ci koñ Jalma ci jataay bu am solo bi nga xam ne waa action daara ji ñoo ko taxawal. muy fas yéene fay joxe ay ndogu yu takkoo takku yu ama am solo ci daara yi ci hôpital yi ak ci mbooleem julliti suñ boroom yi loolu nag mu doon jaamu yàlla gu rëy goo xam ne ñu ngi leen di ñaanal yàlla na ko yàlla nangu te bu ko yàlla nangoo yàlla na ko tasaare ci réew mi yëpp ak ci àddina bi képp koo xamante ne nii yaa ngi ñuy seetaan tam yàlla na la yàlla defal jàmm foo ti nekk ci àddina bi seen mbokkum taalibe son yi bu jóoba nekkoon ci euh, euh, kaddu gi caméra Ablaye Dieye junior fële ca montage ba Baye Mourid Dieng moo fa féete Serigne Alaaji Samb journaliste ak mbooleem taskatu xibaar yi nga xam ne ñoo nekk ci eh, télévision Côte TV ñu ngi leen di gërëm di sant di jox rendez-vous incha allah ci yeneen jataay ñu ngi gërëm tamit soxna Aïcha Niang mi nga xamante ne nii moo àndoon ak sëñ ci jataay bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf